waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yem ak waxtu xibaar yi nees gis ñu dikk ak yéen ci li ci gën a fës. bokk ci li gën a fës ci xibaar yi génn Sori Kaba di wax ne nag njiitu réew Macky Sall benn mandat képp moo ko daal di dese muy bi muy amal ñi nga xam ne ñoom ñoo farak moom nag giseewuñu nu ni mel waral sax ba coow lu ñetteelu mandat daal di jip lu jëm ci 94 milliards yi dox ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Mamour Diallo yeneen mbir daal na ci am ndax njiital Pastef génne na document bu yemoo ko fukki page ngir indi ci yeneen i leeral ci boobu lépp këyit sax moom Ousmane Sonko mën cee gën a tuumaal ki fi doonoon jamono directeur bu domaine fiscalité bu ñu xool xoolee nag lu jëm ci wàll wi yenn ci ay réew yu fare ci Afrique li ñuy ñàkk bëri na ndax nag entreprise yu bàyyeekoo bi ci réew du ñu faral di fay lu jëm ci impôt daal dinañuy tëral ay doxalin ngir saafara lu ni mel ci diwaanu France daañu waxtaane ci njeextalu xibaar yi émigré ya fa fare ñoom nag ñu ngi sàkku ngir ñu gën leen a yombalal seen nekkin rawatina itam dëkkuwaay yi jafe ci jote mu ngoog mbokk yi ñu rafet lu baax seen ànd ak ñun rawatina di taataan xibaar yi file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yooyu la xibaar dañu koy door ak diwaanub Touba ak ci gàttal wax ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Mountakha Mbacké woolu woon soxna Aïda doon nag yëkkati kàddu ngir xamle rek nag doxalinam ak li nga xam ne noonu lay jëfee dafa dëppoowut ak yoonuk lislaam rawatina itam lu jëm ci li nga xamante ne moom moo di yoonuk mburit moom Serigne Mountakha daal di sàkku ci soxna Aïda mu daal di dakkal lépp luy nag yëngute yu muy amal ak mbooloo mbooloo ba mu jiite bu bëggee tënku ci yoonub euh, murid moom soxna si sax nangul na ko lu ni mel wax ni kon euh, ma ngay tuub di jéggalu ci doxalin wa nga xamante ne amal na ko daan ci dikkaat ci yeneen jotaay xibaar lay doon ci ni mu gën a yaatu ànd ci ak suñu naataango ba ñu toogal ci diwaanub Touba di Pape Sayer Mbaye ñu daal di euh, addu ci leneen mbokk yi wax ci lu jëm ci wàllu politique ak nañu ko junjee lu jëm nag ci coowalub juróom-ñeent fukk ak ñeenti yi nga ne nag a ngi nii ne moom moo di Ousmane Sonko ak Mamour Diallo moom njiital Pastef daal dinay génne ab téere daal di ci tënk nag yenn ci mbir wax ni kon ay leeral la ya muy indi ci coowalub 94 milliards yooyee la nga xamante ne nag moom Ousmane Sonko jàpp na ni kii di Mamour Diallo daka daal de luubal boobu lépp téere nag mu tënk ko ci lu yem ak fukk ci ay page daal na ci indiwaat ay leeral ci lu jëm ak ci mbir mi ñu ànd ceeg Kumba Gisee al aljuma fukki fan ak benn ci weerub octobre 2019 ñu weesu lañ daal di amal plénière wu assemblée nationale bu Sénégal mu nekkoon occasion boo xam ne dañuy amal représentation nationale ngir daal di fësal rapport commission d'enquête parlementaire bu ñu institué par résolution numéro 01 2019 bu fukki fan ak juróom ci weerub février 2019 jëm ci affaireu 94 milliards yi Sonko daal di xamle ne mbirum 94 milliards yi nekk na mbir moo xamante ni képp képp kuy citoyen sénégalais mbir mi dala doxal jëm ci intérêt trésor public moom mi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy salfaañee leader bu Pastef bi di fàttali mbirum 94 milliards yi nu mu amee solo ba tax ci li nga xamante ni moo di personnalité ma ak député gi mu daal di nekk rawatina chef bu parti politique moo daal di tax mu saisir lii di OFNAC IGE ca 8 mai ak lii di procureur de la république ci ñeenti fan ci weeru mai ci atum ngir daal leen di laaj ngir ñu ubbi ab l'enquête jëm ci li nga xamante ne ni milliards yi ndax jàppale ni dafa nekk ab détournement boo xamante ne nii dañoo daal di laal alalu mbooloo ci ñaareelu pàcc bi nag leen tekk tekkaaralu procureur de la république ci mbir moo xamante ni jàpp nañ ne dafa daal di am solo loolu jëm ci li nga xamante ne moo di objectif wu ngir daal di préserver deniers publics yi ba tax mu daal di saisir li di juge d'instruction ci ab plainte ak lii di constitution wu partie civile ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2019 jamono ji ci bilépp mbiru 94 milliards ci ab procès public boo xam ne dañuy daal di fësal li nga xamante ne nii moo di dëgg te ànd ci ak ab juge boo xamante ne nii li ko daal di yëkkati du lenn lu dul doxal yoon ci bilépp mémorandum mu daal di résumé Ousmane Sonko mu ngi fësal li nga xam ne moo di incohérence commission bi ndax jàpp na ne loolee dafa daal di fësal li nga xamante ne nii moo di ay accusation wam ndax li ñuy def bu ñu sukkandikoo ci moom moomee dara lalu ko lu dul mbirum politique ak ay kàcc kese keneen ku addu jëmale ci mbir ma mooy nag coow lu Ousmane Sonko muy Aymérou Gningue la mu jàpp nag mooy lu jëm uh, ci mbirum 94 milliards yooyee nekk na loo xamante ne jarut sax uh, coow lu bëri ndax amul benn solo moom ay Aymérou ñing ma nga yëkkate uh, yooyu la kàddu ca bërëb bi nga xamante ne nag moom moo di Vélingara foofee maire bi moo leen fa dalaloon ngir ñu teewee ab tournoi football ñu teewlu ay kàddu Aymérou Gningue ci micro Bokar moom ay waxu ko daanu ci sarit la ak kuy gént ñun dañuy liggéey rek assemblée nationale li ñuy ñor ñun mooy fexe ba li nga xamee ni moom la population yi soxla ñu defal leen ko te loolu lañu ñu président woo ñun amuñu jot toppatoo ay gone yoo xam ne dañuy taxawaalu di waxtaan te li ñuy wax xamuñ ci dara beneen bi ci des nag mooy li ñu indi fii tey mooy ñëw won Wouly Baylo Diallo ni ñu ànd ak moom ci liggéey bi nga xamee mi ngi koy def ci Kolda ànd koog ci Vélingara ànd koog maire yi nekk ci département Vélingara yëpp ànd ko ak chef religieux ànd ko ak notable yi chef de quartier yi ànd ko ak ndaw ñi ak jigéen ak euh, communauté bi nga xamee ni ñoom ñoo yor wàllu jàng bi gis ngeen léegi li mu joxe ci ay fourniture gis ngeen li nga xamee ni moom la bëgg a def tey mooy teg xeer bi nga xamee ni marché euh, Vélingara la te état bi di ko financé à hauteur de cent li mu def ci wàllu électricité ba tey mu tuddee Vélingara lumière loolu yëpp su ko mënee def c'est parce que dafa am état boo xam ne dafa am vision taxawal politique am politique boobu mu taxaw ci Woury Baylo Diallo nekk ci njàmbaar nekk ci waar wi ñun tam ñu ñëw di ko jàppale ci mi ngook ñu desandi ci wàllub euh, politique ak euh, génnu kii di Sori Kaba daal di àddu nag jëmale ci ñetteelu mandat moom Sori Kaba la mu jàpp nag mooy njiitu réew mi mandat bi képp moo ko daal di dese bu wàcce keneen daal di yéeg ci nguur gi mu ni mel nag mel ni lu jur coow ci biir ñi nga xamante ne ñoom ñoo far ci APR ndax ña ca kon tàmbali nañu euh, sulliwaat coowalub ñetteelub mandat waaye du gis-gisuk maire bu Ross Béthio la mu jàpp nag mooy faw rek boobu lépp coow ñu teg ko ci suuf lu ko may dina indi xel ñaar ci askan wi Lassana Cissé lañ ci àndal ci caméra bi Abdoulaye Ndiaye. mbirum mandat présidentiel muy mel ni ñi fare ci nguur gi bugguñu di ko waxtaanee suri Kaba mi nga xamante ni dafa ne président Macky Sall mandat bi mu door mooy doon mandat bu mu jëm ñu daal di ko ci yàq lu mel ni xeme loole nag waral ba ñeneen ñi di laajte ba xam li nga xamante ni da ko wax dafa am lu ci bon laata nag ñuy am li nga xamante ne moom mooy tontu li maire bu Ross Béthio di ñi nga xamante ne ñoom ñooy xaritam yu fare ci APR ñu daal di jublu ci liggéey bi. te bàyyi coow li li Sori Kaba wax loolu la président Macky Sall wax wax na ko du benn du ñaar te it ku xam président Macky Sall xam na ne kuy jox kuy respecté la la charte réew mi tënk la donc euh, wax na ne moom affaire man troisième mandat mu ngi ci ginnaawam loolu moom xalaatu ko sax nañ ko jàppale ci liggéey bi parce que la ko la ko ñor mooy su fi jógee mu bàyyi fi Sénégal goo xam ne wax dëgg yàlla ki koy jël dana ko dana fekk mu nekk ci yoonu euh, euh, yokkute bu bu rëy donc loolu daal moo moo jara jàpp. Amadou Bekay Diop ne waxtaan wi dañ ko war a teg ci suuf mu jàpp ni nag bu dul loolu dañoo nar a lëndëmal xelu sénégalais yi. xam nga suñ ciy faral di wax toujours day tax ba nit ñi xaw a jaxasoo sax foog ne d'ailleurs moo tax débat bi di jug toujours parce que nit ñi dañuy jàpp ne que président dafa bëgg jalgati te moom ku ko xam-xam ne du jalgati euh, wax dëgg yàlla daal euh, lañu la leen war rek mooy suñ ci mënul euh, ànd ci wax jooju sax ñu maanu ci waaye du wax ju bu ñuy jëmee kanam daal maanaam yan wax yi moom naam sax da nga koy comprendre parce que ku am président bu mel ne président Macky Sall sañ yéene mooy nga fexe ba mu toogaat fi bañ fi jóge waaye comme nag dafa am lu ko tënk te it euh, noonu la charte réew mi di doxee nañu comprendre rek ne que lañ ko mën a jàppale moo ñu liggéeyal ko liggéey boo xam ne euh, du ci euh, am dara lu ci rëccu ëllëg suy suy suy joxe réew mi. kàddu yi nga xamante ni Sory Kaba yëkkati na ko ci mbirum mandat présidentiel bi ak coow li nga xamante ne moom moo ci topp mel ni nag lu daal di dekkilaat coowal troisième mandat te moo ne débat boobu nekk na mbir moo xamante ne président Macky Sall àddu na ci ba noppi. na Lassana se ñu gërëm ko mbokk yi ginnaaw wàllu politique ñu àddu jëmle ci wàllu koom ak nañu ko junjee woon ci boppu xibaar yi réew yi nga xam ne ñoo fari ci Afrique te bokk kàllaamay nasaraan ñaare dañuy faral di ñàkk koppar gu takku bu jot li ko waral nag du leen lu dul rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di entreprise yi bàyyi ko bi ci réew te fare file ci Afrique duñu fay lu jëm ci impôt ca na mu waree ngir nag wut ci saafara waaye itam fexe ba mbir mu ni mel daal di dakk ab lël la ñu amal file ci Saly Portudal doon fa waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy rencontre ñoom ñu ngi koy faral di jànkonteel réewu Afrique yi ñeel wàllu koom waaye itam lu jëm ci fiscalité ci noonu teew teewlu ci Abdou Aziz Gueye moom mooy coordonnateur bu direction générale des impôts et domaines ci micro Mamadou Diop ak Mohamed Thiombane. dajale mooy xeex mbir mu doy waar muy entreprise yu mag yi nga xam ne dañuy ñëw fii suñu réew di fi liggéey dañuy fexe ba bénéfice yi ñu fiy am duñ ko fi déclaré dañuy wut ay pexe yoo xam ne dinañ ko yóbbu ci yeneen réew yoo xam ne fiscalité amu fa wala impôts yi dafa néew lool loolu mooy érosion de la base d'imposition bi ñu fiy wax ak transfert de bénéfice léegi nag réew yi ci àdduna yëpp dañoo mànkoo ngir xeex loolu ndax du Sénégal doo nga jànkoonteeg mbir yu doy waar yooyu réew réew réewu nasaraani yi dañ jànkanteeg loolu Sénégal aussi dafa jànkanteeg loolu donc dañuy boole doole yi ñun ak ñoom ngir mun a xeex loo xam ne c'est un phénomène mondial. réew yi ñuy liggéey yëpp lañ waroon fay duñ ko fa fay dinañ fexe am ay techniques yu sophistiquées yoo xam ne moom la ñuy utiliser ngir mën a bañ a fay wala fay lu néew waaw ñoom nag seen techniques yi dañ koy yeesal. ah saa yu ñu yeesalee ñu nit suñu xeex bi ñuy xeex ñoom it ñu yeesal seen i technique donc xeex la budul jeex xeex la budul jeex mukk ñu wàddu ci lu jëm ci wàllu wér yaram ci biir xibaar yi wax ci feebar bi di euh, tuberculose ñu gën ko xam ci sëkkët bu bon bi feebar boobe nag ñaari askan wi ñu koy faral di am laata euh, ñuy wutali kër docteur day fekk mu daal di euh, indi lorange yu bari ci seen wér-gu-yaram lu ci ëpp nag ca fële ca rawatina ca diwaan bu ñu naan Fulam foofee nag askan wi ci téeméer boo jël juróom fukki ak ñaar laata ñuy wutali kër docteur fekk na kon li nga xam ne moo di feebar bi tëral leen ñàkk xam la wala itam ñàkk jotee ci lu jëm ci faju gi daan ci dikkaat ci yeneen jotaay xibaar ànd ceeg suñu naataango Gustave Emmanuel Faye ñu àddu ci xibaar yi bi ci réew ak nañu ko junjee woon ca bopp ba diwaanu France askan wa nga xamante ne nag ñoom ñoo di sénégalais fa fari di immigré yu amagul këyit ñoom nag wàcc nañu ci mbedd mi ngeen ñaxtu bokk ca lu ñu bëgg ñu gën a xoolaat nag lu jëm ci seenu dundin ca foofe rawatina ci jotee ci li nga xamante ne moom moo ñeel wàllub dëkkuwaay nee nañu nag saay su ne lu jëm ci logement sociaux yi ngir ñu jot ci dafay jafe walay sax buñ ca jotee ba noppi anam yéen leen cay génnee nekk na anam yu ñaaw ba tax na ñuy sàkku ci autorité yi ñu gestu leen ki yoroon na seenub euh, kàddu di euh, wuyoo ci tuuru Abdou Sall ñu teewlay kàddam problème mat bi mooy ñun fi ñu dëkk suñu dëkk fi dëkk Paris suñu chambre yi euh, partenaire bi ñu c'est-à-dire bi ñu am bi ñu tabaxee foyer bi ba pare dañu bañ ñu indi suñu suñu yi nekk ak ñoom loolu moo tax ñun nanguñu loolu parce dañu bëgg ñoom ñu def comme euh, comment dire comme HLM yi ñu am même droit locataire comme le locataires à l'extérieur loolu la ñu bëggoon loolu mooy suñu marche suñu marche mooy gars yi joxuñu benn droit joxuñu benn droit lu ñu mënoon am amuñu ko donc loolu moo tax ñu jog ñu xeex pour ñu am ay droit pour ñu am ay dara voilà. donc koppaf ñoom affaire foyer la ñu la ñu def daan aussi affaire foyer droit logement mooy marab sur des associations yoo xam ni dañu dimbali nit yi mooy collectif des sans papiers am ni ñi gars yi ñu amuñu papier ñoo ñoo ñoo ñoo booloo pour xeex. pour mun am ay papier bon euh, ñoom yëpp ñoo bokk ñu bokk benn kuréel comme ça ñu dem pour ñu dimbali ñu mun dimbali pour ñu mun am suñu lu ñu bugg am. bi soo ñëwee ci foyer bii soo ñëwee. soo soo gisee aboor baax na mais soo duggee ci biir dafa am ay problème yu bëri doy na waar doy na waar contrefaçon la dañ ko def contrefaçon dañu indi ay ñeneen pour am xaalis ñu def contrefaçon comme ça ñu ñëw indi ñu rek loger ñu rapidement encore problème bi mooy bi ñu doon ñu dugg ci ci foyer yi xamuñu woon lenn am lu ñu signé lu ñu signé moom loolu la ñu bëggoon ñu ne héberger kuñ bokk donc mu ngi ci liste mu ngi ci liste bi te ñun signé nañ déjà mooy problème bi mais xeex bi il faut ñu xeex jusqu'à la résident yëpp ñu am kay ñu amul kay ñu jóg suñu wootee réunion ñu ñëw suñu wootee manifestation ñu ñëw ñu taxaw ñu dimbalante pour ñu amul papier ñu am papier ñu am booloo ñu amul ñu amul logement am logement comme ça ñu am jàmm mu nekkoon ay kàddu Abdou Sall nekk nag ki yoroon kàdduk ñi nga xam ne ñoo di sénégalais ya fari ca diwaanu France yoru ñëpp këyit di sàkku ñu gën a ñoŋal seenub nekkin rawatina itam lu jëm ci wàllub dëkkuwaay mbokk yi noonu la ñuy jàllee ci ñaareelu pàccu xibaar yi jagleel ko li gën a fës ci xëtu njëkk yéenekaay yi àndi ci ak Hawa Konaté Tamba bisimilah ñu koy door rek sunu natango yu l'observateur yi foofee nag ñu ñuy xamal ne ginnaaw ba ñu noppee ci màggal po Touba bi xalifa général des Mourides daal di nay recevoir kii di soxna Aïda Diallo soxna si sax ràññiku woon loolu ci màggal gi ñu weesu ginnaaw nag ba ñu bëri jàppee ne moom moo fi uutu ki nga xamante ne mooy eh, Cheikh Béthio Thioune eh, nekk nag jamono ji njiitu cantakun eh, yi ba tey ci wàllu woowee sax la ñuy desandi ànd ak sunu natango li Zeko ñuy naan ab audience bi nag ci guddi la amee Bass Abdou Khadre sëñ Mountakha Bassirou daal di ci na nag Aïda Diallo ci jëf yi nga xamante ne amal na ko ci màggal gi màggal gi ñu weesu xalif bi nag ñaawlu bu baax taxawaay nga xamante ne soxna si ayda Diallo amaloon na ko nag ginnaaw ba mu amee taxawaayu nekk xalif canta ku ni xalif bi jamono ji nag di sàkku ci moom mu delloo si xelam bàyyi lépp loo xamante ne daka daan def te tënku ci yoonu murit Dakar Times moom gisee taxawaayu fi nekkoon ay jamono Béthio moom nag mu daal di koy dippee ay dérapage ci anam bi nga xamante ne nag kii di soxna Aïda Diallo amal na ko ci màggalu 2019 bi ba tax na nag sunu naataango yu Dakar Times yi di di sàkku nag ci ulema bi ñu wax ci balaa yi fii di ëpp loxo suñu noppee ci mbiri Aïda Diallo dañuy waxtaanee coowal 94 milliards yi le quotidien moom di fësal ne kii di Ousmane Sonko jamono ji dafa nekk di solde ay comptam mu daal di nag fësal ab mémorandum mu fay ŋàññi bu baax a taxawaayu waa commission d'enquête ak ki nga xamante ne mooy Mamour Diallo ca wet ga nag waa le quotidien di dellu soit nag ci réhabilitation Sall ki fi nekkoon ay jamono euh, ministre di euh, Karim Wade avocat wu Karim Wade yi nag jamono ji di recadré kii di Amadou Ba le quotidien yéen kay daal koy yaatal ci seen euh, page neuf ba tey dañuy desandi ci lu ñeel coowal Ousmane Sonko ak affaire milliards yi ci waa tribune Sonko nag mu mel ne gi wéy nag di démonter liggéey bi nga xamante ne waa commission d'enquête ba ci assemblée nationale amaloon nañ ko te muy gën dugal kii di Mamour Diallo ca ay kaddu yi nga xamante ne ñu ne ay mbàkke mbàkke nag daal di nañ koy addu ci coowal 94 milliards yi ñoom ñu jàpp ne ñoom mbàkke mbàkke yooyu Ousmane Sonko ab danger la ci euh, ndaw yi ñoom li ñuy sàkku nag mooy ñu teg ko loxo ci ni mu gën a gaawee ñu des ci politique ànd ak wàllaas quotidien di fësal ñuy fësal nag nataalu ki nga xamante ne mooy Sori Kaba ginnaaw nag bu mu yëkkatee ay kaddu ci bàpp benn rajo di xam ne ne kii di Macky sàll mu ngi ci mandaa moom bu mujj Sori Kaba nag mu mel ne waa APR yëpp ñoo ko nekk di ko jóori xeer di nakarlu bu baax kaddu yi nga xamante ne moom directeur de Sénégalais de l'extérieur daal dina koy yëkkati ba tey ci lu wala ñetteelu mandat yi ci Afrique saw jant Tiken Jah Fakoly di ab moom jamono ji nag di ngañ Alpha Condé tey dànkaafu Macky Sall IBK ak ADO Vox Populi di dellu siwaat nag ci coowal Karim Wade ak amnistie biñ ne boo muyul nag dina ko daal di am Farba Senghor nekkoon ay jamono chargé de la propagande ci parti démocratique sénégalais di dànkaafu Macky naan bu bu amnistie Karim Wade def ci trois points de suspension mu mel ne nag moom dafay xamle ne moom Farba Senghor bu njiitu réew mi Macky Sall amnistie ki nga xamante ne mooy Karim Wade du mës a jeexal ab mandat mu sekk nag waxtaan bu yaatu ak sunu naataango yu Vox Populi yi cré ba tey ak réew mi quotidien Karim mu mel ne nag jamono ji li muy sàkk ñooy ñu amalaat nag wala sax réviser procès bi nga xamante ne moo taxoon mu génn réew mi ginnaaw bañ ko gracier ñuy wey naan Sénégal moo bind ab bataaxal ca l'ONU loolu nag lu leer la maître Sarr di wéy di xam ne ne dañoo war a def CREI yi ab chambre économique et financière le Soleil yi yéenekaay di ñu jagleel nag ab entretien exclusif boo xamante ne amal nañ ko ak Vladimir Poutine nekk président wu fédération bu bu Russie foofe nag moom euh, Vladimir Poutine mu mel ne nag ku fay def ay proposition euh, continent Afrique ñuy jeexale nag euh, tàggat yaram ak le stade quotidien championnat wu Europe yi Barça jamono ji nag di wéy di des ci boppi championnat am Real Madrid mu mel ne nag jamono ji ngi ci ay jafe-jafe ba tey ci record muy dellu soit nag ci doomu réew bu Sénégal boobee di Habib Diallo nekk deuxième meilleur buteur bu Ligue 1 bu France docteur Babacar Ngom nekk ci commission médicale bu fédération sénégalaise bu football dellu soit ci coowal Mbaye Niang mu naan Mbaye Niang moom kenn mësu ko infiltré te loolu mooy dëgg gi sunu lamb la Papa Sow li dellu soit nag ci combat bu mu fas yéene amal moom ci digganteem ak Siteu moom muy xam ne boobu lépp combat nar na nduroog nag choc yu cent millions yi te moom pare woon na sax pour dajek Sa Thiès moom Papa Sow pare woon na it dajek kii di Boy Niang mi mu jàpp bokk na ci bërekat yu gën a ràññeeku ci arène bi Papa di xam le ne Modou Lo ci boppam mën na nag baat record bi nga xamante ne Yékini moo ko fi teggoon ñuy jeexale ak laaj wi Ama Baldé foofee la ñuy jeexalee di leen jox dig daje beneen te di leen ñaanal yendalu jàmm. gërëm ko bu baax moom soxna Hawa Konaté Tamba mbokk yi jaajëfal yéen ci topp gi ci première chaîne bu télé privé bu Sénégal jaajëfal ñi ci jàpp ba mu yemb rédaction bi di naan àndaat ak moom 19h ak 20h ngir yeneen i xibaar laata loolu ñu bàyyi leen ak sunu ay programme jaa ngeen jëf.